ginnaaw bi ko askanu Kaolack fale ngir mu doon meeru Kaolack bu yees ginnaaw élection locale yu 2022 yi Serigne Mboup ki nga xam ne moom moo di préfet bu département bu Kaolack installé na ko ngir mu jël fonction en tant que maire bu Kaolack. ñu installé ko rek la nga xam ne moom la njëkk a def moo di jébbal mairie bi valeur boo xam ne xayma nañ ko ci 150 millions de francs CFA muy bus bi ak pelle mécanique bi nga xam ne ñoom ñaar ñëpp da ko may mairie bu Kaolack. ne bus bi nga xam ne nii maa ko fi indi woon muy bus bu 40 places ak pelle chargeur bi nga xam ne ne gis ngeen ne liggéey na ci dëkk bi bu bees tàq la fi ñëw ñaar yëpp ñoom ñaar seen valeur de 150 millions danaa ko jël ma jox ko mairie bi mairie bi moom ko. mu nekkaat au service de les des citoyens. moom meeru Kaolack bu yees bi Serigne Mboup di xamle ne dana def kéemtalaay kàttan ba confiance bi nga xam ne moom la askanu Kaolack am ci moom ak équipe bi mu àndal du leen décevoir benn yoon. ma déclaré fii ne damay samay xarit samay xarit lañ mais loolu lu ma moom la man sëriñ Mboup waaye charge mairie de Kaolack. benn Kaolack waa amoo ci différence ñun ñëpp a ci yem kon nag dama fi nekk pour Kaolack waa yépp loolooy tax ma mérité confiance bi nga xam ne nii moom la urne yu génne ndax ñun ñëpp xam nañ ne bu doon politique rek ñu gën a professionnel ci politique ñi ngi fi woon waaye won na ne Kaolack choisir nañ beneen yoon muy yoonu développement kon nag nañ fexe ba buñ ñu wàcc yoon boobu sama feuille de route mooy reste ci niñ waxoon rek te yaakaar naa candidat yépp ñoo xaw a niroo mooy lan jël kawlax yóbbu ko muy dëkk bu naat yokk qualité bii vie bi ba ku ne sawar fee dëkk comme ni mu amoon bu njëkk mbooleem conseillers municipaux yi nga xam ne ñoom la fas yéene àndal mandaam bi mu leen di ñaaxaat ci ñu liggéey bañ a jàpp rek ni fonction conseiller rek doy na. ci loolu nag maa ngi wax sama partisan yépp yi nekk fii ñuy conseiller kenn ku ne na nga dem nga delluwaat ci liggéey ba nga nekkoon ku daan jaay ganaar na jaay ganaar ku daan oto na jaay oto. lu waay def na ko defi ndax kat ci li ma gis charge maire yi charge adjoint conseiller mënu laa yokku dara lu dul nga liggéey ba population bi euh, gis ci boppam la ca population bi di gis nga gis ci sa bopp ndax kat charge bu noble la boo xam ne da nga rendre dans l'histoire waaye nag loolu mënut a bokk ak nga ne population bi nañ ma ko fay kon nag nañ jël li président John Kennedy waxoon mooy xool leen lan ngeen mën a defar seen réew waaye bu leen xool li leen seen réew mën a defal te loolu nag mooy li nga xam ne. yéene gi nga xam ne am na ko ci dëkk bi ngir soqali ko tax na ba mu woo mbooleem ñi nga xam ne ay doomi dëkk bi lañ te nekk ci bitim réew ba ci ñu nekk ci biir réew mi ngir ñu ñëw ñoom ñëpp ànd ak moom bokk ci ñi nga xam ne ñooy soqali Saalum. kon nag maa ngi invité képp kuy bonne volonté loo ci man nga def ko ci nga nekk fii nga nekk fële nga nekk ci bitim réew ak foo mën a nekk xam ngeen Kaolack yi mu soxla ambulance corbillard baax na yëpp te doomi Kaolack war nañ koo mën a defal seen bopp te bu ñu ko defalee jàppale état bi ñu ñëw dugal ko ci patrimoine la mairie ñu mën ko utiliser ñun ñëpp ñu yem ci équipe municipale bu yees bi xayma nañ ko ci juróom-ñetti fukki conseiller fii ci Kaolack ginnaaw bi ñu installé Serigne Mboup fal nañ ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk adjoint au maire ñu xayma leen ci fukk ak juróom-ñaar ki nga xam ne nag mooy maire Kaolack bu yees bi di Serigne Mboup biñ koy installé kii di waajuram wu jigéen teewoon na ci biñ ko takkalee écharpam ba noppi ca moom la daal di jubali